alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man saara ala hadiyihi wastanna bi sunnatihi ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi noo ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci sangu bindeef yépp di ilimaani mboolem ku yàlla mos a muy say muy muhammad sallallahu alayhi wa di leen ndokkel di leen ziyaara ci bis bi di ajjuma di fanweeri fan ci ndeyu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent ci gàddaay gi di fàttali sunu bopp di leen fàttali tomb yi nga xam ne sunu bokk waxtaane woon nañ ko ci ajjuma ji weesu ak te jiweesu ñu gënoon waxtaan ci mbirum al isra wal mi'raj tey nag dañuy mottil rekk tuuti ci al isra wal mi'raj te waxtaane sérité bi nga xam ne bi ku tedd ka yéegee ca kaw wuji ji woote boroomam ba bi muy del si moom la àndaale muy julli ñu tënk ca ay tomb xam ngeen ne rañaan ma ak yégg yàlla wax na ko ci alquran ñëw na ci sunna te saxaaba yi yi ko fekke ñoo ko seere lu ko waraloon nag yàlla rekk moo ko xam waaye nag mën nañ cee foraatu ne bokk na ci ya ko waral sunu borom da doon woyafal métit yi nga xam ne nekkoon na ci ab xolam moom sallallahu alayhi wa ndax booba ay bokkam ak nooni lislaam ñi ngi koy teg fitna ak i coono moog ñi mu àndal te itam at mooma la ñuy wooye aamul xuzni ndax ca la ñàkk bàyyi taxam abu taalib ca la ñàkk soxna su mag sa muy soxna xadijatu sunu borom nag bëg koo dëfal ba xoolam mën a woyof xoolam mën a féex bokk na ci tam li tax sunu borom defal ko al isra wal mi'raj mooy xamal ko ne ko am na wàccuwaay bu rëy fa sunu borom ndax loolu ci moom lañ ko njëkk a dégge ci moom lañ ko mujj a dégg bokk na ci li waral rañaan ma ak yégg sunu borom wan ko nag ay kawteef yoo xam ne kenn mësu koo gis ku moom yàlla sax mi ngi wax naan li nuriyahu li nuriyahu min ayatina waxaat ne laqad raa min ayati rabbihi al kubra kon lam fa gis moo moom rek moo ko mos a gis lam ca wax moom rek moo ko mosa wax bokk na ci li waral rañaan ma ak yëgg mooy nattu way gëm yi ak way weddi ndax am na ñoo xam ne loolu dafa ub seen bopp ba dañ caa jóge weddi ba faw waaye am na ñoo xam ne loola da leen a dolli pas-pas ak ngëm ku mel ni na Abu Bakar ca la amee dàkkental wu siiw woowu ñu yooyu as siddiq ndax bañ ko koy nettali dañoo defoon ne buñ ko ko nettali rek mu weddi waaye mu ne lii ngeen wax de bu fekkee moo ko wax e, dëgg rek lay wax bokk na ca taan ya nga xam ne suñu boroom wan na ko ko mooy xar ga xar dënnam génneb xolam fóote ko ndoxum zam-zam loola kenn musu koo am kudul moom war al buraaxit kenn musu koo am kudul moom jiite ñi yàlla yónni ñëpp tam julli kenn musu koo def kudul moom la anta imaamu rusli euh, jooju sëriñ bi wax moom rek moo moo a am ñoom ñépp mu jiite leen julli bokk na ci euh, yi nga xam ne tam ay kaawteef la mooy yéeg ga mu yéeg ca kaw gis bokkam ya nga xam ne yàlla moo leen yónni ni mu ko yónnee xad baata yaxriqu tibaaq fi leyli qaasida wifaaq wal anbiyaau bittifaaq laaqawhu bitakarrumi waxtaramu wa qaddamu wa karramu wastaslamu tawaaduan wa azamu li qadrihi almuxtarami kon ñi nga xam ne yàlla da leen a yónni mu dajeek ñoom ci guddi googe ñu xam dayom ak màggaayam ak xàqam ñu jox ko xàqam waaye ñoom fa ñu mën a yem rek fa la ñu yem moom nag mu jàll fa gaaba anhum wartaqa fawqa alburaaqi li liqa xabibihi waxtaraqa xujbal ilahi almunimi summa li daarihin sana waqad xawa kulla muna moo tax ba mu jàlle yéeg ba àgg foo xam ne moo fa mos a àgg bi mu delsee aajom faju na la mu bëggoon lépp am na ko moom lay waxaat nan akrim bi rabbi asra bi xibbi laylan li qurbi ma al baraa'i qad yasri min baadi tuhri mooy xolam ba ñu fóot mu diima bishri fi l ambiyaa'i mu ànd ak nag jibril waaw ci war ca kaw alburaaq mu ne suural muy moom ku tedd ki ma al amini muy jibril fawqa al amini yi alburaax lil asfiyaa mu fekki nag ñu yàlla yónni woon wa saada fihim ndax moo leen jiite julli wa baana anhum wa siina anhum mu ne mes nag xamatuñ sax fu mu nekk baadar tiqa i ginnaaw ba mu yéegee qad aaba layla ci guddi gi mu demee ci la delsi xad sabba naylaa xad faaqa saylaa kon lim àndaale ci ay xéewal kenn xamul nu mu toll min zil baxaay xad jaa bi mayri li ahlil xayri muy julli gi nga xam ne moom lañu ñu bëgg a waxtaane kon rañaan mi e, muy al isra ak nag yëgg muy al miraaj bokk na ci kiimtaani sunu borom yi nga xam ne musu koo defal kenn ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa la anta imaamu rusli qad jaa annahum talaaqawka fi l israai wal qad salla mooy la mu jëflante ak mboolem ko yàlla musa yónni jiite leen julli ñu xam ne moom mooy seen kilifa julli nag ginnaaw soo waxee ashhadu an laa ilaha illa allah wa muhammadan rasulullah bokk nga ci lislaam bokk nga ci biir léegi nag jëfe ndigal yi moo ci des lii ay wax la ñaari baati seere yi ay wax la al imaanu ma waqara fi l qalbi wa saddaqa wal amal da koy fas ci sab xol euh, wax ko ci saw làmmiñ say cir nag di ko jëf kon nag ñaari baati seere yi moo jiitu lépp su jàllee nag ana lu ci tegee ci ponk lislaam yi mooy julli moo ca gën a màgg Muaaz ibnu Jabal ba kooku tedd ki di yónni Yaman da ko wax ne ko yaa ngi dem ci nit ñoo xam ne ci ahlul kitaab lañ bokk kon am nañu téere te jàng nañu soo demee na leen woo waaye la nga leen di njëkka woo mooy ñu wéetal yàlla mooy ñu wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah suñu ko xamee suñu xamee maanaam laa la illallah muhammadu rasulullah nag na nga na nga leen wax ne seen boroom farataal na ci yéen juróomi julli ci bëccëg ak guddi innaka taqdimu ala qawmin min ahli alkitab falyakun awala ma tadcuuhum ila an yuwaxidu allaha taala fa ida carafuu dalika fa axbirhum an allaha farada alayhim xamsa salawatin fi yawmihim wa laylihim kon gis nga ne soo waxee ñaari baati seere yi bokk nga ci lislaam waaye nag la la cay gën a boole nag mooy ngay jëfe ndigal yi ndigal yi nag la ca jiitu mooy julli bokk na ci li tax ñu xam ne julli moo ëpp solo ci ponk lislaam yi mooy sunu borom dañu ko sant ci mbir mu mën a doon kenn amu du amu lay soo tukkee da julli boo nekkee fi nga dëkk da ngay julli soo amee gu wér da julli ca nañu ko santaane soo tawatee da julli ca nanga ko mane soo nekkee ci jàmm ak tal da julli soo nekkul tam ci tal nekk réew muy xeex guerre di guerre ba tey da ngay julli kon daal du du wàcc jaam bi senn saa te santaane yàlla yi nga xam ne mooy ya ca des nag ci ponk lislaam nañu ko xool ndax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah soo ko waxee benn yoon ci sag dund tàbbi nga ci lislaam wax gi koy wax nag dalay dolli ak yëkkatiku day leeral sab xol dalay dolli tuyaabo waaye soo ko waxee benn yoon doy na bu dee woor weeru koor benn yoon nga koy def ci at mi bu dee natt azaka benn yoon nga koy def ci at mi bu dee aji màkka sag dund benn yoon benn la war ci sag dund soo delloo dala soob da ngaa coobarewu waaye benn yoon la la war ci sag dund nañu xool nag julli julli moom bañ koy door a wàcc sax juróom fukki yoon la waroon juróom fukki yoon ci bis bi waaye sayyiduna Musa alayhi salaatu wasalaam laaye biir sunu sang ba ku tedd ka ne ko sa xeet yu duñu ko àttan juróom fukki julli sa xeet yu duñu ko àttan da dellu ci sa borom sàkku ci moom mu woyofal ko mu dellu mu woyofal ko ci juróom mu dellu si mu ne ko ba tey doyul de mu dellu mu woyofalaat juróom mu dellu si mu ne ko doyul de mu koy def di ko des di ko def ba mu des juróomi julli mu ne ko dellul duñu ko àttan de mu ne ko rus na maa dellu mooy li wolof wax naan bët bu rusul toj rus na ma dellu nag ndax juróom fukk ñu koy wàññi ba mu des juróom rus na maa dellu te bu ñu seetee sunu bopp juróom yi sax léeg-léeg day xaw a të ndaw ko ndaa day xaw a kon nag su doon juróom fukk mët wax dangay seet loo xam ne su doon aj màkk benn yoon ci sag dund bu dee woor ramadan benn yoon ci at mi bu dee natt asaka benn yoon ci at mi waaye bu dee julli nag juróo juróomi yoon ci bis bi loolu day wane ne kon julli lu rëy fa sunu borom la te itam mboolem ponk lislaam yi moo ci gën a màgg moo tax alquran wax ne xaafidu ala alsalawati walsalaati alwusta wa quumu lillahi qaanitin fa in xiftum fa rijalan aw rukbaana fa ida amintum fadkuru allaha kama allamakum ma lam takunu taalamuun أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله

ashhadu anna muhammadar rasul أكبر لا إله إلا الله سماحة الخليفة العام السفير المغربي السيد حسن ناصري ويرحب ويرحبون أيضا بالوفد المرافق السيد محفوظ عبد الرحمن السيد عزيز أبو بكر والسيد ناصر الدين بن زينة والخليفة يتمنى لكم إقامة طيبة في طوبة كما يتمنى لكم السعادة في هذه المهمة يتمنى لكم الإقامة الطيبة المباركة في هذا البلاد في هذه البلاد وأن ويسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير والازدهار للبلدين الشقيقين فأهلا وسهلا بكم في طوبى المحروسة المباركة kon julli gis ngeen ne boo nekkee ci jàmm ak soo ci nekkul soo wéree ak soo wérul soo tukki ak so tukkiwul da koy def na mu ware wala nga def ko na mu mane waaye na nga mane waaye du la wàcc xoola xadis bi nga xam ne waxoon na ko kenn ci saxaaba ya ne ko salli qaa'iman fa in lam tastati fa qaa'idan fa in lam tastati fa ala jamb da doon ku tawat mu ne ko sooy julli nanga taxaw soo ko mënul na nga toog soo mënul na tëdd kon du wàcc kenn bi muy wujj sunu borom sax dénkaane yi mu mujj dénkaane julli da caa bokk dane na ngeen ma fonkal julli ak nja njabootu démb gii leen yàlla booleel assalaata wa ma malakat aymaanukum yàlla ñi ma mos a ñëpp ñuy wommate di yóbbu ci yàlla ci ndigalul yàlla euh, di def lu baax lu baax lañu doon def julli da caa bokk wa jacalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina wa awxaynaa ilayhim ficla alxayraat wa iqaama alsalaati wa itaa alzakaa wa iqaama lana caabidin wax na moom ku tedd ki ne diine ji su amoon bopp mooy ñaari baate seere yi rasul amri al islaam diine ji su amoon bopp mooy ñaari baati seere yi daal ne diine ji bu doon mbaar kenoom mooy julli rasul amri al islaam wa amuduhu assalaa te xam ngeen ne julli képp ku ko jox xàqam fonk ko mu dox sa diggante akub safaan inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli ku ko fonk jox ko xàqam yàlla fóot la ci say bàkkaar ndax wax na moom ku tedd ka ne ku amoon ak dex ci sa buntu kër saa boo xëyee sangu ci juróomi yoon ndax danga nga dese apter ñu ne ko déedéet mu ne julli juróom noonu la mel sunu borom da cay fóoti nit ki ci ay bàkkaar bari julli day tax nit ki dëkkaale ak ngën ji ci àjjana dafa am kenn ci saxaaba yi koo xam ne nee na maa ko daan duyel sarla gi muy jàppe di ko toppatool ay waajtaayam bis mu ne ma wax ma loo bëgg ma ne ko asaluka ko fil janni fil na dama bëgg bis booy dem àjjana ma ànd ak yow dëkk àjjana mu ne ko te loo loolu rek nga bëgg mu ne ko loolu rek nga bëgg loolu rek laa bëgg mu ne ko fa ainni ala nafsika bi kasrati sujud nang ma dimbalee ci sa bopp nang ma dimbalee bari looy julli soo bëggee dëkk ak man ci àjjana nang ma dimbalee barilooy julli xam ngeen ne ku baax kii borom pàkk bi ba muy dëkkaale ji ak sunu borom sëriñ Mbàkke Bousso nee na ñetti mbir a ngi ni yoo xam ne da leen a nimse woon da doon bëgg ci kanamam ba ci jëkk mooy dem màkk aji màkk waaye sunu boroom euh, la mu yaakaaroon la bëggoon am na ko ndax mbooloo ñoo ko demal màkk bu doon doy ñu ne doy na waaye lu baax du doy kon dem màkk bëgg-bëggam la woon ba ci tege moo di jumaa ji ñu nekk da ko naaloon mu doon bëgg-bëggam ginnaawam sottal nañu ko ba defal ko ay jumaa yoo xam ne bu doon doy doy na waaye lu baax moo doy ba ci tege mooy daara joo xam ne nag dañuy laxas di fa sàkku ji xam-xam loola li ñu def ci ay daara ginnaawam bu doon doy doy na waaye lu baax du doy waaye xam ngeen ne nag sémbal nañ ko joo xam ne nag mooy ndayi daara yëpp mooy magi daara yëpp joo xam ne bis bu sottee waxu mën a biirum réew waaye bitim réew dañuy laxas di fi ñëw di fi sàkku si xam-xam xam-xam yuy defar adduna di defaraal defaraale àllaaxira xam-xam yooyee nag xam ngeen ne euh, bis bu naal bi yeggee dana mën a antu kon nag ki ko euh, tàmbali woon muy Cheikh Abdoul Ahad ak kii ko yàlla teg ci loxoom mu bëgg koo sottal ñëpp ci war a gën a laxasaayu ànd koog moom ñëpp ci war a laxasaayu xam ne bëgg-bëggub bi woon lu mu nim woon kon nag kenn ku ne war naa fexe ba buy sotti mu bokk ca ña koy sottal waaye li waral e, wax ji mooy bokkoon na ci lam doon sembu mooy jumaa ji jumaa ji nag sotti na bañ defal koy jumaa bu doon doy doy na loolu doy wane nu mu fonk julli gis li mu daj ci julli julli ci birub tubaab te ñuy bañ ko fa julli julli ci kawam ndox te loolu yombul di gor ay bant di samp ngir def ko jàkk ngir julli te booba tumuranke na booba wéet na loolu lépp day wane ne ku bëgg julli la ndax xam na ne ñaari baati seere yi bu jàllee moo gën a rëy ci ponk lislaam te moom lu yàlla santaane du ca am sago kon nun ñi nga xam ne ñooy ay dongoom lépp lu mu amul amutoon sago waruñ caa am sago war nañ caa waslu àq di ci def lu ñu man bay def sax lu ñu mënul rawatina di ko defee nag ca mbooloo fa la gën a baaxe kon sembu yi nga xam ne sunu kilifa gi sembu na ko ñi ngi ñaan sunu borom mu dolli ko kattan ak wér ba mu sottal ko tenu nu ànd ko ak moom di gën a nag dalal gan ñi nga xam ne ñooy ay ganam yu bàyyi ko bitim réew ñëw fi ñu ngi ci biir jumaa ji loolu la ñuy tëje ahlan wa sahlan بسعادة السفير المغربي الذي وصل مع هذا الوفد المحترم ونتمنى له إقامة طيبة والشيخ يدعو له بالتوفيق في هذه المهمة الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي وجب حمده على ما أسدى وتعين شكره على ما أهدى فإياه نحمد وبوحدانيته نشهد ومنه نستوجب ما هو عائد منا ونستمنح ما يحبه ويرضاه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده الأمي الأمين ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واجتهدوا في مخالفة النفس والهوى واحذروا عقاب من يعلم منكم السر والنجوى ألا وإن الأرض والليالي والأيام والأموال شاهدة على العبد يوم القيامة بما عمل فيها وعليها قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها فاعملوا عمل من يعلم أنه راجع إليه وتعرضوا لنفحات ذي العزة والجلال بالصلاة والسلام على الواسطة في في سعادة الحال والمال وأخلصوا النية fa innama al amalu binniyaat wa innama likulli imri'in ma nawa الحمد لله الذي أمر عباده بالتقوى وصالح العمل ووفق من شاء وأضل وخذل والصلاة والسلام على سيدنا محمد داعي الرشد والفلاح وأصحابه الفائزين بغاية الهدى والصلاح أما بعد فيا عباد الله في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن أشفق من النار لها عن الشهوات ومن ترقب الموت صبر على اللذات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ومن أراد النجاة من الأسمات والوصول إلى لأحلى المراتب وأصرف الدرجات فليكسرا من الصلاة والتسليم على ملاذ الورى وشفيع المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه الطاهرات واجعلنا يا مولانا من المرحومين ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا أحدا من الأشقياء المحرومين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah الله أكبر الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الله أكبر سمع الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر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

akbar sami allah rabbana lakal hamd allahu akbar allahu akbar Allahu akbar asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.